acte bi ñu posé léegi ci teewaayu kilifa ASP muy Amidou Mbow muy président conseil bi ci teewaayu ñu fi nekkal Union européenne ci teewaayu ki fi teewal Sénégal fii organisation internationale migration OIM ci teewaayu euh, directeur de l'air et de de la police de l'air et des frontières di coordonnateur national euh, bu programme Sen Sécurité ci teewaayu suñu collaborateurs yi suñu naataango yi ASP yi ci gis-gisu njiitu réew mi euh, muy plan Sénégal émergent nga xam dafa nekk ci ñetti pàcc ñetteeli pàcc bi dem ci wàllu kaaraange wàllu jàmm ak ci mission OIM muy saxal euh, liberté ak jàmm ak yokkute ci wàllu économie ak ci wàllu social ci la réewu Sénégal ànd lëkkaloog Union européenne ñu amal benn déggoo bu tudd programme seen sécurité coordonnateur national bi mu ngi nii taxaw suma ginnaaw ci biir déggoo boobu ci la Union européenne jël matériel bu am solo <clears throat> jox ko ASP pour ASP gën a ñoŋal liggéeyam matériel boobu Union européenne jox ASP mu ngi nekk juróom-ñaari pick-up double cabine marque Isuzu moto tout-terrain marque Yamaha ak euh, ñaar fukk vélo tout-terrain ak téeméer ak juróom fukk lampe torche ak téeméer ak juróom fukk ak ñeent ceinture ak téeméer ak juróom fukk ñeent étui ak euh, juróom ñaar fukk ak juróom ñaaru sac bouclier de frappe ak téeméer ak juróom fukk ak ñeent bâton tonfa muy ay bâton yuy dimbale ASP yi ci wàllu kaaraange muy loo xam ñu ngi koy rafetlu ndax ASP yi ñu ngi jàppale police ak gendarmerie ci wàllu kaaraange waaye ñu ngi jàppale administration Sénégal yëpp ñu ngi fépp ci Sénégal ñu ngi ci institution yi ñu ngi ci quarante cinq départements yi ci suñu unité départementale yi fépp fu ñu yóbbu aussi lépp lu manqué ci administration bi ñu ngi ko fay def ci wàllu ressources humaines donc euh, ndimbal loo xam ne la dafa yegg si ci waxtoom ndax kaaraange du doy moom moo tax ñu ngi sant di gërëm waa Union européenne bu baax di sant di gërëm suñu partenaires yëpp di leen di gën a taalal loxo di sant di gërëm njiitu réew mi aussi ci ñoom ñuy jàppale bu baax a baax di rafetlu déggoo bi ñu booleeg Union européenne di leen feddaliwaat suñu kóllëre du ñaan yàlla aussi dégg bu sax ci njëriñu partie prenante yi ko seq yëpp ñu di gërëb leen sant di rafetlu ñëpp ñu fi teew euh, jërë ngeen jëf. maanaam dooleel bi nga xamante ne dañ ko doon dooleel agence de sécurité de proximité ci suñu projet bi nga xamante ne man maay représenté état di Sénégal ci projet boobu projet bi tudd Sensec UE donc euh, ci kaw loolu ci lañ jox euh, agence de de de pour la euh, sécurité de proximité ay oto lu toll ci juróom-ñaari pick-up yoo xam ne tout terrain lañ yu bees tàq ak ay moto yoo xam ne toll na ci ñaar fukk ak ñeent yoo xam ne tout terrain la ak matériel de protection boo xam ne dina leen permettre ñu am ay jumtuwaay yoo xam ne dina yombalal seen liggéey. comme ni ma ko waxee woon ca njalbeen ba donc euh, Sonsec dafa di projet boo xam ne Union européenne moo koy mettre en œuvre euh, dañ koon ko OIM pour mu mun a mettre ko euh, opérationnellement en œuvre donc ci kaw projet boobu projet boobu li ko tax a jóg mooy jàppale sécurité Sénégal muy force de défense et de sécurité yi mais également bépp maanaam organe boo xam ne rek da ngay yëngu ci wàllu sécurité dañ la ci boole pour nga pour mun la jàppale renforcer say capacité renforcer say moyens donc pour nga mun def sa liggéey ni ni mu waree ci kaw loolu donc lañ ñëwoon tey fii doon jox euh, waa agence de sécurité de proximité seen wàll parce que gis nañ njëriñ bi nga xamante ne agence boobu moom la ko amal en tout cas moom la ñu amal ñun ci ci ci mbirum sécurité parce que man Euh, policier la aussi force de défense et de sécurité la bokk donc xam nañ njëriñ bi nga xamante ne appui bi nga xamante ne agence bi amal nañu ko en terme de de de en fait d'aide et en terme d'appui donc loolu moo tax tey ñun aussi ñu taamu ne ñii ak seen liggéey bi rafet li ñu defagum yëpp jar na aussi ñu xalaat leen appuyer leen ci cadre projet boobu donc loolu moo waraloon tey chef de représentant chef de délégation Union européenne ak équipe bu Sensec yëpp Euh, ànd ak ñun euh, ak état du Sénégal donc pour jàppale agence bi nga xamante ne mooy agence euh, de de sécurité pour la sécurité de proximité donc duñ yem foofu ak ñoom comme ni ma ko waxee parce que projet bi comme ni ma ko waxee am na yoo xam ne jotoon na ko def pour poste de défense et de sécurité yi muy ay formation kii leen tabaxal ay infrastructure muy ay commissariat ki ay centre spécialisé de formation ki jënd leen ay ordinateur et cetera donc ñi ñag seen wàll ñëw na tey mais des na parce que am na ay formation yoo xam ne xam naa ne dinañ leen ci boole comme ça ñoom aussi gën a defaraat seen taxawaay gën a defaraat seen seen liggéey liggéey bi rafet na waaye du tere rek ñu jéem a yokk formation bi gën a defar daal loolu moo taxoon tey ñi nga xamante ne moo waraloon tey ñu ñëw fii pour jox li nga xamante ne moom mooy wàllu euh, agence euh, pour la sécurité de proximité wàllam ci li nga xamante ne mooy appui bi nga xamante ne moom la ñuy def pour force de défense et de sécurité yi Euh, man la Mame Seydou Ndour laa tudd euh, man maay directeur de la police de l'air et des frontières nekk la coordonnateur nationale du projet sec donc man maay représenté état Sénégal ci projet bi nga xamante ne moo tudd Sensec UE sec Union européenne.